ñu ñëw fii ñun ñu nekk coordinateur national bu coalition bi nekk coordinateur coalition Adiana tamit à Touba gis tamit Touba ni mu àndee ñoom ñëpp ñoom sëñ Cheikh Abdou euh, ñi fi nekk yëpp acteurs yëpp ànd nekk benn ba tey jii Touba gépp xam nañ ne Macky Sall la ñuy woteel loolu nag ñu ci santaat bu baax a baax di wax na tey jii lii ñu am ñun ñi nga xam ne ñëpp dañuy wax ay intellectuel wala ñuy liggéey Ndakaaru dëkk Touba defe naa ne lii nii nekk na mbir mu am solo si ñun boo xam ne mën nañoo ñëw julli si àjjuma delluwaat mën nañ fi ñëw weekend mën nañ fi ñëw ay réunion mën nañ fi ñëw lépp murit bu bëgg a euh, ñëw ziara si mën nga ñëw ziara si dellu delluwaat sa liggéey kon loolu defe naa ne euh, ñun ñëpp ñoo war a sant Serigne Touba ñun ñëpp ñoo war a jàppale Macky Sall ba projet yi ni mu ko wax la ko bëgg a àggalee def ay contournement yoo xam ne yuy dem ak tamit yokk tali yi yokk assainissement bi bu ko defee mbooloo yeneen yi nekk Touba yu mel ne Touba ci kanam yeneen jàpp ci bu ko defee danañ fexe ba tubaa mel na ko borom bëggee woon incha allah rabbil alamin jërëjëf